lu bees bees képp ku bëgg yónnee sa barkeelu ci Touba ca kanam jaarale ko ci Wizall Money léegi mën na nekk lu yomb la téléchargel sa application Wizall Money ci Play Store wala App Store boo noppee inscrire ubbil menu bi bës facture bës si logo Touba ca kanam yónnee sa addiya yow mi amul compte ci nga bokk mën nga dem ci bépp point Wizall Money yónnee sa addiya yàlla nañu bokk ci ñuy jëmale Touba ca kanam Wizall Money compte bi yombal seen àddina Bichri Sénégal mooy distributeur monnaie électronique wu Ecobank Sénégal ak Banque Atlantique Sénégal wajalilaayi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri manabat